mbokk yi nit suivre Leewtoo TV nuyu nañ leen ziar leen tey nag gis ngeen ay saret wala boog gis ngeen géej gi gis ngeen ay gaal fi ma taxaw nii yàgg maar ci gaal xaw ma gaal gi fu mu jëm nag xaw ma bari ñi la jëm wala Tëngéej wala Kayaar wala Espagne waaye loo ci mën a dégg moom man du ma dugg gaal muy daw un mètre loolu man manuma ko waaye fii moom Kayaar la gaal yaa ngi ni maar yii mooy nappi jën yi di ko indi yaboo yeeg coof yeeg. waaye mbooloo mi nga seen ñu taxaw nag boo ko gisee da ngay xam ne kon am na lu fi xew te lamb la li ko waral mooy ki nga xam ne nii mooy Libidor ba ngeen xamu ne kii Grand Yoff tey nag moo ñib si dëkkam Kayar di waajal grand combat am sam dimanche le 22 stade Iba Mar Diop moog Serigne Ndiaye numéro 2 jéey seen tëgg ko open press sam lay def yaa xool mbooloo mi maar gis nga loolu maar yaa ngi gis lébu yi ana géej gi maar maar li ngay seen lan la loolu géej est-ce que mën nga géej yàgg maar ah ndar-ndar nga <laughs> yaa ngay dégg sabar kon nañ dem ci biir ñu xool ba xam lu fa ne. yàgg maar xam nga ne lii xoolal lébu yi gis nga ni ñu toogee de dañoo solidarité nag ma wax la ko tey dimanche boo sàggane Iba Mar Diop si kàttanu yàlla buñ ko fekkee de tal ko di nga gis lu doy waar diggante Libidor ak Serigne Ndiaye wallaay Kayar gépp a génn wax na dëgg nit mbokkam daa ñëwaat ci mbokkam jam téere ngong ci ginnaawam adversaire u jet li kii ma war a bëreeg li ndeysaan xool public ba maar waaw mais mbër mbër maa ngi lay ziar ñu ngi lay ziar bu baax mais mbër public bi génn nii waaw incha allah ñëpp ñëw sat public bi waaw ñëpp ñëw ñëpp a ñëpp a ñëw sama daan kat jaar jël bu rëy bilaay na daal vraiment. teeruwaay. eh waay. jadi jati jat waaw. taxawal jati c'est que man. waaw doo taxaw. non. jati lu xew. waaw c'est dama dama dama découragé. bu waaw waaw. dama bëri six ma daan. yaaw jàll deux fois. daan seer jox équipe Bombardier. deux fois. daan seer jox ñaari bu ñu dab. bëriwaat ak mu dul ma ma toog. gars yi di ma sabote di ma xas ma bàyyi làmb lamb dellu ginnaaw. yaa bàyyi làmb dellu làmb waaw. woo leen jënd bu ñëwaat làmb delluwaat fa mu nekkoon. def fu mu newoon. Ah? boo ñëwee mu baaxaat. bu dee làmb nekk fa mu nekkoon. am naa xorom am naa bayre man naa bëri Waly Balago sekk mooy sama sëriñ ma la ko wax. Waly sa sëriñ. léegi nag ah mooy sama sëriñ Waly Balago Seck li ci des nag mooy télé bi kaw ca kanam rek lu ngeen yott yàlla na leen yomb. yàlla bu ngeen seetlu seen ginnaaw. too TV mais lamba day dem Leewtoo TV kaw ca kanam ñëpp moom la ñuy seetaan dinañuy seetaan Leewtoo TV jàddee ngi nii Leewtoo TV ngi nii kaw ca kanam Kayaara ngi ni loolu lañ joxe kàddu yi moom tey de sànni am nañ ci sànni ndax na daal na daal vraiment soog a dem lagat bi quoi lagat bi soog a jëm Diouf quoi waaw waaw waaw waaw am problème ngi fi nga xam ne nii moo di Kayar ñuy nuyu population kayaar yëpp waaw li ko commencé ci maire commune bi wala meeru dëkk bi book ak ku fi yeewoo daal ñu ngi lay nuyu di la jaar di la ñaanal jàmm di ko sàkku ci yow tey nag ñu ngi jàkkaarloo ak Libidor bu Grand Yoff lañ xamoon waaye léegi mu ngi ci biir mbokkam kayaar mu war a bëre dimanche le 22 digganteem ak Serigne Ndiaye Libidor ñu ngi lay nuyu di la ziar fii ci sa dëkk sa tund sa gox muy kayaar waaw Lamine ñu la ziar. onze billahi auzu billaahi mina seytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim ginnaaw bi buñ jullee buñ jullee si yent bi sant sant yàlla sant suñu ñaari waajur di leen ñaanal yàlla leen yaar xaraajana aussi di leen sant seen déplacement bi ngeen déplacé wu ñëw Kayar moo leen xamal ne tey waa Kayar ñëpp dañoo mobilisé wu génn jàppale seen doom ndax li noonu li noonu bëgg ay ay at te yàlla def na ko quoi kon léegi ñun ñibbisee nañ suñu dëkk si si anam bu na anam bu rafet waaw anam bu rafet leen ñibbisee moo tax kon tey lii ñu def nii génn bii ñu génn kontaan nañ ci wante nag ba ñoo ko mën a gën a kontaan si affaire bi dañuy nan ku nga seen doom parce que ISAT moom solo te mbaa bu am solo la nekk te yaakaaroon si lu dul waa Kayar ndax fi doon juddoo fi doon yaroo ndax parce que bala ngaa def dara sa dëkk ñoo war a njëkk a génn xam nga taxaw si waaw bu ñu defee loolu après ñeneen ñëpp ñu si àll bi dañuy mën a génn mën a sawar man see jàpp waaw kon tamit dañuy dañuy léegi su ma ñëwee tey nga ñibbisi ci sa gox comme niñ ko xamee ci côté écrit ñu ñëw fi tey gis population bi yëpp génn boo xoolee fi mu ngi fees dell. gars yi sóoraale leen caméra yi waaye s'il vous plaît ah. tey ñu ñëw fekk gox bi yëpp génn maanaam fii mbooloo mu toll nii wër la nga jëm ci bes dimanche lool lu muy def ci yow. waaw loolu li muy def si man maanaam sant yàlla ndax parce que ñoom xam nañ seen doom parce que doore quoi. xam na tamit lu ñu yor ndax foog naa ni mbooloo mu toll nii bu ñu génnee si nii rek ba topp ga rek kon am na lu ñu gis si moom leneen ñaari dañuy ñaan yàlla loolu gis si man yàlla bu seen yaakaar tas waaw ñu ngi koy ñaan bu baax a baax a baax a baax waaw. tey adversaire bi ngay bëreel xam nga ko. waaw Serigne Ndiaye xam naa ko bu baax a baax a baax a baax wax dëgg yàlla mbër la man mbër laa le 22 moo nu boole nag dañuy ñaan yàlla am dam ci kawam quoi. ndeysaan loolu am na solo léegi ma gis kera seen face à face mu tàngoon jër dënn yu jóg xol yu jóg yéen ñaar lu waral seen diggante rivalité bu metti doon am ci ba kera ma gis pression bu metti jóg seen diggante no loolu combat rek parce que combat dañ koy jaay boo gisee loolu dara loolu jaay combat bi la pour combat bi am promo te liñ si doon liñ wut am nan ko combat bi am promo kon li des moo ñu liggéey daan ka mu jeex loolu rek moo des quoi ah, ah. waaw tey yaa ngi ci sa biir mbokk ma laajaat la ko ñaat Ndiaye ñaata yoon ngeen bëree si àll bi mbapat waaw Serigne Ndiaye bëri nañu bëri nañu quoi loolu yàggul ñëpp gis nañ ko kon nag li ëpp solo bëri nañu adressé nga loolu waxtuñ ko xam nga non loolu amul problème nan bàyyi ba le 22 rek incha allah après lamin nga posé woon na question ma tontu la si. Babacar ay wax mais Lamine ak Babacar benn la <laughs> yéen ñaar daje ngeen xam naa ne bëre ngeen mais tey ngeen war a bëre bëre dóor yéen ñaar ngeen di ay mbëru mbapat ñu boole leen si bëre dóor yaa moom. soo ko xoolee xool sa bopp kan nga yaakaar ni moo gën a pare actuellement. ah man moo wax dëgg yàlla sama bopp laa xam xaw ma Serigne Ndiaye ndax li ma liggéey laa xam li ma liggéey moo ma ko sonné li ne si man moo ma ko sonné waaye léegi Serigne Ndiaye lijjanti moo ko te liggéey naa li ma war a liggéey pare pour le 22 damay ñaan yàlla ñëw ci jàmm dara bañ maa bañ a dal ma ñëw si jàmm fete ga fete yi mit daa nga dem sama yoon fete. fete nga wax de bi ngay mujjee fii bi ngay mujjee Iba Mar day da ngaa fete woon pakala bu lamsaar kii est ce que mën nga koo fete non mën naa fete ku du Serigne ndax ñu na fu tësu ma mën naa fete ku du Serigne Ndiaye lamb la nag waaw dañ bàyyi ba bés ba rek nga ci dóor mu daanu seen diggante comme li nga mujj a jógee waaw lamb lu ne mën na cee am lamb la rek lamb moom reenu ñàmb la fa ne demoo boo dee lu ne mën na cee am waaw mais su ngeen waree bëre yéen ñaar nag suñu waree bëre ah dañuy bëre rek bëre bu neex ñu bëre rek ñaan yàlla yàlla may ma ndam incha allah damaa gis euh, sa doomu ndey ngi taxaw sele ngeen daje terrain gaal gi mu bëreeg sele daan ko ñëw sëkkatal la nga am loo ko wax keroog lu ngeen te bis boobu. non loolu ay wax la rek ah, day teg maayante xel parce que moog sele mi yàgg ñoo daje sele mu ci koom kon loolu ay mbapat la rek day daanante quoi wante nag mbapat ak arène bokkuñu waaw arène lañ jëm tous les plans la ñuy pare loolu moog sel après suba suba dina dajewaat ñoom ñaar. waaw dañ dajawaat quoi. mais tey su ma a gisee ni tamit mu mel ni mbër bu am confiance nga ci combat bi nga jëm loolu na sa ginnaaw ci bëree la wala ci doole wala ci ñu la taxawul la ba sa xel dal maanaam daal dañuy gis ngay ngay dagaase benn confiance boo xam ne ni bu doy waar la. waaw boo déggee loolu ñun taxaw na fu ne bëre taxaw na fu ne bëre kon bis ñun bu ñu ko yenoo kon nekkatul mbër war noo yenu bis xam na li ñun naaguwul nag waaye danoo bëre fu ne bëre nit ku nekk xam nga c'est combat la kon dañ koy def bëre rek

ci lépp laa ko corrigé. yéen ñaar doole. ma ma maa bu doole. kopp fit. maa bu fit. ku dàq a bëre. maa dàq a bëre. kuy daan. ma maay moo ëpp mbooloo si bisu bi ay supporters. waaw loolu dañuy ñaax suñu waa dëkk ñaax tunu jandeeru ñëpp aussi lébu yi fukki penc yeeg ñaar yaa ngi dégg tout combat bi da nga gis du nga tunu jandeer da di woo. wante nag balaa kenn ñëw na waa Kayar njëkk a génn parce que bi ah waa Kayar si am part écrit Kayar la nekk yaa ngi dégg ñun defuñu kenn lu ñaaw ah parce que boo nu xoolee Grand Yoff lañ jógee wante Grand la nekkoon kon ñu tëdd waa Grand Yoff leen woo parce que rafet la nekk ak ñoom ku si Grand Yoff noo waajal gis nga kii ñëw ni Rhone Grand Yoff la jógee booy topp sama ginnaaw Grand Yoff lañ jógee Selemi campement la jógee kon Libidor Libidor Sénégal la wante nag dafa soxe koo Kayar lébu yëpp yaakaar nga man man man yaakaar la buy laa aussi woo sama mbokk séeréer yëpp tamit ñoom ñu ngi ñu ngi ñu ngi jàpp ci combat bu baax a baax ma leen xam ne waa Zoual xam nga yëpp dinañ teew waa campement Ngexo dinañ teew xam nga waa Fatick dinañ teew xam nga ili ili ndox mi gars yi dinañ teew yaa ngi dégg ñoo joor gars yi dinañ teew xam nga moo woo waa njar waa njar waaw di woo sama sëñ góor njar nag dama ñëpp déglu parce que tund njëriñ la am quoi tund amon amoon nay champion léegi nag ñun la fi yàlla teg sunu maamee ñu fi nekkoon sunu yéene am na lu fi nekk ñu ngi ñaan waa njër gi yëpp di leen wax ñu jàppale seen doom seen seen seen seen seen seen seen taalibe parce man waa njër ñoo sama yaakaar yaa ngi dégg foofu laa nekk dama leen woo ñu jàpp si ko mbaa pop waa diaspora bi ñëpp yaa ngi dégg dama woo Espagne France itali mbokk yi fépp fu waa Kayaar nekk fépp kuy bëggee Libou Dor rek xam nga maa ngi lay woo di woo waa axlu di woo xam nga di woo di woo waa tu lamb di woo waa kees rawatina waa kër si sama nijaay yëpp maa leen woo combat bi daal ma kenn Sénégal ñëpp laay woo di leen wax ñu ñëw ñu jàpp su waay defal ko bagage. defal ko bagage bagage. bagage yéen ñaar ngeen di ñaari champion du Sénégal parce que su ma juumul jël na ko ak Fatick yow nga jël ko ak région de Thiès. waaw waaw fi mu toll ñoo fi ne 2019 bi ñoo fi ne. région de Thiès moo ñoo fi ne ñoo téye drapeau soldat bi te noonu lañ koy daan incha si uh-huh. si 2019 bi di bëri bëre drapeau boo koo xam ne soxna la di jigéen di suñu yaay ñu koy nuyu muy soxna euh, député ba ah maam jaara femme ñu koy nuyu di ko ziar moom itam mu mel ni moom nee na làmb moom du sedd moom kon yéen xanaa du ngeen ko seddal dimanche de ci fecc ak ci lépp waaw mukk du nga ko seddal Babacar du ma ko seddal Babacar sama bët daa fu ma ko teg Babacar làmb caaxaanuma si xam lu ma lu ma lu ma desee ñi may supporter ak sama waa dëkk billaay wallaay tallaahi waa de Sarène damay wax gaay ñu génn xoolal daan ndaanaan fu ndaanaan egg si bëri rek ñun jaar na fa te wóor nañ làmb dañ nan na suñu nekk mbër mooy coow fii lu mu daj si rek ñun dañ nan ka ndax dëkkoo dëkk dem nan fa fu mbër jaar jaar nan fa lu mbër di jël jël nañ ko liñ jël si ay trophée mun nu kaa compté li ñu finaalu si àdduna mun nu kaa compté kon kon tey lan moo tax nu ma a nekk roi des arènes waa sama waa dëkk kun jàppale na nga nekk roi des waaw maa ngi sas ñëpp billahi wallahi wa taala laa la wax tala laa wax suñ ma jàppale rek ma nekk roi des arènes woo waa maire Kayar sama mag Aliou Ndoye maa ngay wax mu jàpp ci kaari bu baax booy yi génn xam nga le na booy yëpp sacrifice ñëw isaat yaa ngi dégg le 22 yomb na quoi na booy yëpp sacrifice ñëw isaat billaay wallaay talaay ñu daan sa waay jël bu rëy waaw. léegi fi ñuy tëjee mooy promoteur bi tëg seen lam muy jéy di jeune comme ñun di jeune tam comme yéen loo koy wax ci côté euh, maanaam ci dimanche en tant que promoteur bu tëgg sa lamb tey. waa jéy li nga koy wax ne bu doy yaa ngi dégg ñu ngi koy sant tamit di ko gërëm. ndax euh, tëgg na ko bi ci fulaak fayda kon moom amuñu lu dul sant ko li mu yaakaar ci làmb ji yàlla na ko yàlla na ko am maanaam mu dem ba tëj porte yi te làmb ji gëm naa day tëj porte yi ba ma fa mujjee doon tëj porte yi bii dina tëjaat porte yi incha allah damay tëj porte yi rap waaw kon ba dimanche incha allah maa maa ngi sant sama doom lay sele di sant xam nga jamteer sama mag ñoom baay Sarr maa leen sant ñoom Baye Ndoy ñoom ñoom Isaac ñoom Antou jaddi jaddi sax gis naa ko xam bàyyiwuma kenn kayaar nag bàyyiwuma kenn di sant ñoom Birahim sama gaay waa ñàmb gi ñoo fi nekkoon gaay ñu ërëm nag maa ngi sant ñoom Bira ñoom Paul xam nga sant imaam dëkk bi yëpp imaam dëkk bàyyiwuma kenn maa ngi sant ñëpp imaam Mansour ay sëñ Xaadim maa ngi sant ñëpp képp ku fi ne kilifa rek di ñaanal nag kilifa yi fi nekkoon da bàyyi ko ñu ngi leen ñaan yàlla nañu yaara xaar àjjana waaw di ñaan ñaanal Ndiass yàlla na ko yaara xaar àjjana bàyyi sëñ Malick suñu maam yàlla na ko yàlla xaar àjjana ñi fi nekk ñëpp ñi fi nekk na di téye kurus di ñaan ñu leen di woo combat bi seen combat la bu kenn baay ndax li fi ne ñun xeebuñu ko de li nekk suñu jëndee tamit ñun xeebuñu ko nan ñaan bu baax le 22 ñu daan sa waay jël bu rëy écurie Kayar nag maa ngi leen sant bu baax di sant tamit écurie Grand Yoff ndax tamit lu mu tamit tamit fa laa nekk falaa laa doore yaa ngi kon nu ma leen mos a fàtte ñoom tamit seen xool ci man di su ma sa jóg mooy woo waa Grand Yoff yëpp sama waa koñ waa na maa ngi leen di woo bu baax a baax a baax a baax a baax waaw di campement de woo sama yaay xam nga na ma ñaanal rek incha allah waaw rang